suñu borom yagal Cheikh muntaha basir ak mbollem njabootu Cheikh Khadim gep yëg noonu ñu ngi ñaan baax suñu borom yagal fi seigne bara job mom Cheikh Ahmadou Nour ak mbollem njabootu Cheikh Ahmadou Nour gep di fàttali rek bisu bi ñu jëgmal ta mooy bisu Poroxaan te Cheikh Ahmadou Nour amon digelul yobu fa ay dàpp te Cheikh basir ñu koy wote nak kër gu suñu mënaar geef ñu fa am ngir yeesal keur ya yeesal ko def ci ay wanak ak yam lambo yep rek war bi nak ci ligul sëñ baara mi tok la ak mbollem njabot gi dañ koy jox rek mu ubi ay kaddu soñ mbollem taalibe yi ak am di jamm yi ci liggey bi nga xam liggey Cheikh Amadou Nour la bisimilah sëñ assalamu alaykum wa wa barakatuh bokki yëpp maa ngi leen nuyu di leen xamal ne ne barab di di lijjanti moom di defar barab si manaar defaru ko boppam taalibe yëpp a tax moo dema di ñëw ci lekk di ko ci yëngu ah, bëgg naa nag ci lépp lu ci waay mën a def dimbale def di jàpp jàppale ko ca ko ña kër kër si manaar te kër si taalibe yëpp la waaw li ci des nag moom lu taal sañ daal dana ko mën a yeggale waaye lépp ci ko ci ma ndigal la dina koy la koy def jageen jëf alam tabini alwatani بترك الغائق الحسانية والوطني والوطني